abdullahi wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokki jullit yi daarul birr wal irshad ak daaru birr tv noo ngi delsiwaat ak yéen ci seen rubrique bi nasihatun ila sabab muy conseil à la jeunesse bi nga xamante ni dañu koy faral di defal ndaw ñi ndaw ñi nag buñ ko waxee mooy ñi tàmbalee fukki at ba jëm fanweeri at ñooñu ñooy ndaw ñi am na ca ndaw ñoo xamante ni ndaw ñu ndawee lañ ak ndaw ñoo xam ne ca diggante bi lañ ak ndaw ñu xaw a jege mag tey nag falillaahi alhamdu dañoo am suñu wëllëre boo xam ni euh, ku yàgg di suivre daarul birr di nga koy faral di gis ndax yàlla def ñoo boole ñu nekk benn muy al oustaz imam Cheikh Ndour nga xamante ni mi ngi dëkk fële ca suuru ca Tuubakuta su ko defee tey dañoo bëgg a ànd ak moom incha allah mu jàppalanteeg ñun ci conseil à la jeunesse mawdu bi ñu tànn tey muy tomb bi ñu tàmm muy afiqu ayuha shabab mooy yéen ndaw ñi yeewu leen yéen ndaw ñi yeewu leen nag incha allah moom bu nuyoo ba pare dinañ leen ci waxal lan mooy jubluwaay bi incha allah ñu ànd moom ci jotaay boobu incha allah kon fale tafaddal maskura salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi uh, alhamdulillah ñuy sant borom bi subhanahu wa taala di julli ci yonante bi sallallahu wa sallam. di nuyu waa daarul bir wal irshad ak waa daarul TV. Eh, di leen wax yéen ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Cheikh Omar eh, incha allah ni nga ko waxee ñu fas yéene ànd ak yow ci tomb bu am solo boobu nga beral ndaw ñi. alhamdulilahi rabbil alamin mbokk julli di comme ni ma koy faral di waxee eh, tey ñu ngi ñëw ci tomb boo xam ni muy waxak ndaw ñi ne leen yeewu leen ci nelaw yi ngeen di nelaw. su ñu nee yeewu leen ci nelaw yi nag tekkiwul ni nelaw yu ngeen tëdd ci lal di ko nelaw walla nelaw yu ngeen tëdd ci bërëb di ko nelaw waaye nelaw yi mooy nelaw yi ngeen di nelaw ci àdduna ak nax yi ñu leen di nax conseil yi mbokk yi dafay jëm ci ndaw ñi <coughs> la sakka mag ñi mën nañ cee jëriñoo su ko defee liñ ciy njëkk a wax mooy yéen ndaw ñi yeewu leen te ngeen xalaat li ngeen war a njëkk xalaat nag mooy seen diggante ak seen diggante ak seen borom d'abord ndax loolu moom moo jiitu ndax yàlla subhanahu wa taala daf ñoo bind ñun ñépp moo xam mag walla ndaw waaye li tax borom bi bind moom mooy ñu xalaat ko waaye te jaamu ko kon oustaz buntu boobu buntu la boo xamante ni dama jàpp ni li jiitu mooy diggante ndaw ak boroomam maanaam jeunesse bi ak seen boroom xale bu góor bi ak boroomam xale bu jigéen bi ak boroomam foofu loo leen di dénk foofu incha allah rabbi waaw alhamdulillah euh, foofu li leen di dénk mooy li ma leen di dénk foofu mooy ñu bàyyee xel euh, wax bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon te daanaka boo xoolee da ngay gis ne ci ñoom la gën a hmm. bi alayhi salaam bi ne nicmataani maxbunun fihima kathirun min annaas muy asixatu wal faraax mu ne ñaari xéewal a ngi nii yu rëy yoo xamante ne ñu bëri ci nit ñi dañ cee woru ñaari xewal yooyu mooy xewalu wér yaram ak xewalu am jot daanaka boo xoolee wàllu wér yaram ndaw ñee ko ëppale mag ñi ndax nit bu jëmee mag rek commencé tàmbalee dajale ay feebar daanaka tamit boo xoolee jot ci ndaw ñee ko ëppale tamit mag ñi kon foofu war nañoo fexe ba seen wér yaram googu ak seen jot googu ñu def ci loo xamante ne seen borom day gërëm loo seen borom mais ñu bañ koo utilise rek ci la nga xamante ne dañ ciy topp hawa nafs muy bànneexu bakkan ak seytaan kon gis nga dama jàpp ni oustaz euh, yàlla bi mu ñuy bind dafa amoon lu tax mu binduñu ñu yéen ndaw ñi ngeen bàyyi loolu xel te li ñu leen di wax mooy li yàlla wax ak li yonent bi wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom bi dafa wax ci suuratu zaariyaat ne wa ma xalaqtu l jinna wal insa illa li yacbuduun borom bi taala wa tabaarak nee na bindul jinne ak nit lu dul ñu jaamu ko waa jaamu googu nga xamante ni moom la borom bi soxla ci ñun ndax jaaduwul ndaw li xam ko ndaw loo xam ni yaa ngi toll ci buntu àdduna àdduna soxla la caaxaan soxla la fo soxlo la seytaane soxla la waaye sa boroom soxla la te boo seetloo ndaw ñu bari dañoo sàgganee seen digganteeg seen boroom sàggan googu ñu sàggan ak seen digganteeg seen boroom dama jàpp ni war nañu di leen fàttali li tax ñu bind leen ñu xam cause boobu peut-être dina leen dimbali insha allah rabbi euh, waaw Cheikh Omar loolu noonu dong la war a demee tamit ci ndaw ñi noonu lañ ko war a déggee mooy objectif bi tax borom bi subhanahu wa taala bind ñu mooy ñu jaamu ko léegi nag ci biir jaamu googu ni mu waree mag ji noonu la waree ndaw li waaye tey daanaka boo xoolee ndaw ñu bëri seen temps boobu ñu am ci xadis bi jàll léegi ma wax ko au lieu ñu def ko ci jaamu borom bi subhanahu wa taala mais dañ koy def ci topp seenu banneexu bakkan tey la waroon ndaw ña tey mooy ni nga xamante ne noonu lañ leen yaakaaree parce que ñoom ñooy mustaqbalul xadd ñooy ñooy avenir u ëllëg avenir u ëllëg boobu nag eh, ci fan fànn yëpp bépp fànn boo xamante ne dund doomu aadama da koo laaj mooy jagal eh, penc mi baaxal jikko yi defar ko loolu ndaw ñi ñoom ñoo ci jiitu ndax tey boo xoolee tey ndaw lu góor li dafa am loo xam ne tey bu ci góor góorloo mu noppal baayam ci yar ay rakkam yu jigéen parce que moom ak ñoom ñooy dem moom ak ñoom ñooy génn moom ak ñoom ñooy ànd kon tey war naa tàggat boppam ci jaamu yàlla ak ragal yàlla subhanahu wa taala ak tamit def boppam nit ndax nit ku nite mooy ki xam boroomam xam li boroomam di xaar ci moom su ko defee mu góorgóorlu ca farlu ca jéem caa soññee tamit ki nga xamante ne moom moo di euh, rakkam bu jigéen waaye ndawi tey daanaka boo xoolee li ëpp ci ñoom tey lu bëri ci àddina li àddina laaj tey ndaw ñu bari xam nañu ko waaye dangay am déception tey boo dajale woon téeméeri ndaw nga ne leen waxal leen ma faratay njàpp rek nga am déception parce que ñu bëri ci ñoom boo yeboo nga ne 10 pour cent duñ ko indi te nag loo leen laaj ci mbiru àddina rek ñu indil la ko donc loolu dafay wone ak sàggane boo xamante ne ak gàttañ lu boo xam ne ndaw ñi gàttañ lu nañ ko ci seen jaamu seen borom waaye tamit jox ko àddina kon ndaw ñi foofu oustaz est-ce que seetlu woon ni am nañu dox seen diggante ak seen borom parce que boo xoolee ndaw ñu bëri tey ñu bëri su ma ko waxee waxuma ñëpp waaye ndaw ñu bëri comme ni nga ko waxee boo leen laajoon farata julli xamuñu ko farata njàpp xamuñu ko waaye ndaw ñu bëri koo laaj ci ñoom daf la naan man jullit laa koo laaj ci ñoom daf la naan man nangam laa ci benn kër ci këru diine yi am na fu mu ca bokk waaw bokk boobu mu bokk ci benn kër ci këru diine yi waaw est-ce que warul woon ñu laaj ndax këru diine yi seen rôle bokk ci woon ñu tàggat ndaw ñi ci jaamu yàlla jaamuloo leen yàlla ndax loolu bokkul woon ci seen rôle su fekkee ne loolu bokkoon na ci ndax def nañ ko loolu question la boo xamante ne moom laa lay posé kër yooyu ñu bokk di ko askanoo wala ñu ëpp ci ñoom kër yooyu ñu bokk di ko askanoo ndax ñu ngi leen di jàngal seen diggante ak seen boroom li ci war ci wàllu ibaada wàllu muamala wàllu tawhid waaw alhamdulillah xam nga gàttañ lu gi foofu la commencé maanaam dafa déparé ci baay bi baay bi jur ndax moom mooy masul bu njëkk bi responsable bu njëkk bi moom la donc bu fekkente ne baay ji dafa wàcc àndam la ko waroon fa ko yàlla doon xaar ci njabootam baay bi su ko defoon amaan na xale bi eh, doon na ko doy rek man jullit laa doon na ko doy rek ne man jullit laa waaye dootul nekk koo xamante ne dafay am feneen fu muy tànn mu di fa askane boppam mu mel ni foofa walla loola lañ fay def ak lay lañu la la la la l'islam di def loo nit ki dafa waroo tey ñooñu tamit gannaaw bi nga xamante ne aussi yàlla nattoon na ndaw ñi ci fànn woowu euh, ñu bëri tey ci source sunum réew dañoo askanoo ci ay kër parce que tey am na ci tey ñoo xam ne boo nee jullit laa te askanoo woo ci kër sax duñu ñu considérer sax njullite donc ñooñu li leen njëkk a war mooy ñu xam lan moo leen di xaar ñu xam lan moo leen di xaar lan moo xaar ñoom ndaw ñi. ndaw ñi ak ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo toog ca kër yooya. kër mhm. ñooña toog ca kër ya dafa am lu leen di xaar. Mhm. ndax it nag. Mhm. li xew ci jamono dafa bokk ci li nga xamante ne bokk na ci li ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ne moom bokk na ci lim ñu gën a ragalal. mooy ñu dem ba xeetam dese. ay njiit ay kilifa yoo xamante ne. yu ràññeewuñu lañ. ay kilifa yu réer ay njiit yu réer. su ko defee yoo xamante ne seen lépp duñ ko teg ci xam nit ñi nag dem yaakaar leen wéeru ci ñoom di leen laaj ñuy ubbee cig ñàkk xam ñu sanku sanke te daanaka tey boo xoolee tey ci jamono jii foofu la ñu toll ndax tey ñu ñu bëri ci tey ci ñi nga xamante ne ndaw ñaa ngi askano ci ñoom lañ soxla ca ndaw ña mooy la ndax la ndaw ña di di dajale ci am am da leen indil maanaam seen kattan ak seen am am ak seen am am daanaka ton donc foofu ndaw ñi tamit ñu waroon a xippi seen i bët. xam ne kii tey ma wax ne moom laa yaakaar te ba weeru ci moom. man la yaakaar. man ak sama moroom ñoo samp këram. maak sama moroom ñoo yor dundam. maak sama moroom ñoo ko jandal oto. maak sama moroom ñoo ko yoreel addinaam. ba pare ñu bugg koo yaakaaree àllaaxira te moom fasul xàncuwul. jàngalewul yarut. loolu tamit mu doon lu mbir bu yéeme. maanaam su ma déggee kon. nit ñi ñi ñuy topp waxuma ñëpp maanaam ci wàllu kilifa diine yi ak ni ñu leen jàngatee xam nga tax may wax li sànq dama ci EDK bi dama dajeeg benn xale bu góor dama wàcc sama oto rek mu ne ma kii du Oustaz Oumar Sall ma ne ko ah, mu ne ma yow xanaa munoo bàyyi sëriñ yi ma ne ko lu sëriñ ci def lu sëriñ ci def benn waaye nag waaye baal Oustaz mu ne Oustaz dëgg rek lay xoolal ki ma àndal de moom moom loolu la ma commencé munoo bàyyi sëriñ yi benn waaye ne ko dëgg rek lay wax dama taxaw <laughs> yëngal sama bopp dem Euh, ndaw ñooñu nga xamante ne tey wala ñu ëpp ci ñoom su fekkee kilifa diine biñ ñu moom la ñu yaakaar ñaam ñi da ngay dégg ñoom li ñuy wax dañoo yaakaar diw tey ak ëllëg koo yaakaar tey ak ëllëg jàpp naa ne sa adduna moo la ko war a defaral waaye yow ki nga yaakaar tey ak ëllëg yaa koy dimbale parce que yaa koy bayal toolam yaay yëkkati addiya di ko ko jox su amee xew yaa koy rafetal lépp lu mu bëgg yaa koy defal jamono bii ñu jege nawet bi nii rek yaa ngi commencé dégg communique yi war nañoo ruujal sëriñ diw war nañoo ruujal bàyyi diw war nañoo defal baay diw nangam suñu demee ba war a récolter war a dugg ci ngóob nga déggaat communiqué yi kon tey boo seetloo nit ñi ña ñu yaakaar ñoo leen di dimbale ba pare wëlbati wax ji maanaam yow laa ñu yaakaar tey tey moom réglé wul ndax tey moom yaakaar gi du dëgg ndax yéen yéen a yëkkati di ko jox moom fa mu toog fasul xàncul jubluwuñ ci xas nag ndax ki yàlla yónni matu melul woon noonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy njiit li gën ci njiit li waaye dafa daan liggéey ànd ak ñoom di def léegi yow ki nga ni moom laa yaakaar tey wax jooju dëgguwul ndax sa yaakaar tey mooy yaa ko dindi ndax yaa koy jox yaa tax mu tedd oto bu rafet ba yaa tax mu am ko léegi nag ki nga xamante ni fii ci àdduna moom nga yaakaar te yaa koy defal mbaa boo demee àllaaxira du am problème kon loolu boo xamante ni war nañ ko bàyyi xel beneen bi moom mooy ndax ña ñuy topp dinañ leen xamal tawhid ndax dinañ leen xamal wéetal yàlla taala wa tabarak ustaaz barakallahu fiik balaa sax di ñuy àgg ci ndax dinañ leen xamal tawhid mais dañuy reculer tuuti ci loola nga xamante ne ñoom ndaw ñi ñoom ñoo ko yëkkati di leen ko jox ñoom ñuy nangu dèjà buñ ci demee ci njàngale yonente bi sallallahu alayhi wa alihi day fekke ne kon loxol ndaw ñi ñoo gën mhm. ñoom seen loxo ya mhm. ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo jàngale al yadul ulya mhm. xayrun wa ahabu ila allah min al yadi sufla loxo bi féete kaw di joxe moo gënal yàlla yow loxo bi féete suuf di di nangu kon foofu rek bu ñu fa demee kese kese kese kese dañuy gis kon ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ban loxo moo gën diggante ñaari loxo yooyu ñaari loxo maanaam sëriñ bi tàllal waaw ak taalibe bi yëkkati teg ban maanaam taalibe bi yëkkati teg moom loxoom bi moom ci waxu yonent bi loxoom moo gënal yàlla moo gënal yàlla moo gënal yàlla loxo sëriñ bi waaw waaye ñun fii ñun lu ñu jàpp ñun waaw loxo bi ci suuf moo gën moo gën waaw ñun loolu lañ jàpp kon loolu contradiction la waaw donc léegi nag mhm. ci biir njàngalem tawxiid mhm. tey tawxiid mhm. mooy li nga xamante ne buñ ko jàngaloon nit ñi mhm. ñëpp noppalu ñëpp dañuy doon ay jàngkat mhm. doon ay liggéeykat mhm. doon ay jaamukatu yàlla doon ay defarkati bokk doon ñoo xamante ne du ñu bàyyi lenn mu yàqu ci penc mi waaye ba ñu jëlee tar tawxiid nag ñu nërmeelal tawxiid kenn ku ne di wone di woote jëme ci sa bopp xam nga nga war a woote jëme ci yàlla woote woo jëme ci yàlla ndax ngay woote jëme ci sa bopp wala nga woote jëme ci sa maam wala nga woote jëme yow ci li nga gëm mooy yaa sànq ña ngay woo ndaw ñi dañ leen a wonul tawxiid ñun dañ leen a nampal shirk ak ay bidaat ci loolu la ndaw ñi namp te loolu nag suñu koy wax daanaka ñun ñëpp mucc ñu ci à cent pour cent ndax it bu fekkente ne ñun euh, defuñu ko ci jamono yii bu ñu ñu moytoo shirk ak bidaa su fekkee ñu ngi koy moytu jamono yii mënuñoo mucc ci ne ñi ñu jàngal ñun ñi ñu jàngal setuñ ca wecc buñ ca setee tamit suñu waajur jur yàgg ñu leen jàngal setuñ ca waaye nag loola du tere tamit ñu wax li nga xamante ne moom moo war a am ndaxit nag borom bi subhanahu wa taala fi mu ñuy xaar mooy li mu yónni yonentam sallallahu alayhi wa sallam te it ci loolu la ñuy laaj du ñu leneen mm-hmm. kon loolu dafay mel ni rek day sànn euh, woo bi ma waxoon barki démb ne ayuha sabab irkabu safinatan najaat moo yéen ndaw ñi kaay leen yéeg gaalu guy muccale gaal gi mucc la nag du borom xam-xam a ko yore du sëriñ a ko yore du wàllu yo yore waaye gaal googu ki koy conduire mooy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xool leen yonante bi sallallahu alayhi sallam ñaata la defar ci ay ndaw ñaata la defar ci ay ndaw boo xoolee sahabatul kiram ñi ko topp ñëpp ñi ci gën a rëy ci ndaw la ñu ko toppee te yonente bi sallallahu alayhi wa dafa ñëw defar leen defar boo xamante ne ñoom ca la ñu jógee defar àddina ñoom ñi sa sahaaba yi yonente bi formé maanaam yonent bi dafa yee seen xel daas ko daasaat ko maanaam yee xelu nit ki mënoo ko yee lu dul nga xamal ko boroomam ba pare nit bu xamul boroomam moroomam lay xam malheureusement loolu moo ñu dal moo tax ñu bëri ci nit ñi ay moroom la ñu xam waaye xamuñu boroom xam moroom mooy sabab bu moroom mi waxee nga ni eskay sëgg ci suuf mais ana kan ci saxaaba yi nga mos a seetlu yonent bi toog mu sukk ci wetam nii rek nu groupe ne doo wax doo def dara ndax loolu mos na am ci dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon yonent bi sallallahu alayhi daf ñoo yaroon pour nit ki na siggi li mu bëgg na ko wax li mu soxla na ko laaj bu xamul ñaata yoon la yonent bi wax saxaaba yi ne ko pour pourquoi ndax loolu tey seetlu nga ci suñu dundiin ci wàllu këru diine am na kan ci taalibe moo ñeme sëriñ bi wax ba pare nga ne ko foo ko teg euh, ci li ñuy dund amut amut loolu moom amul sax sikki amul te yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mooy kilifa yi ñëpp waaye doon na wax saxaabatul kiram ridwanullah ci lim leen yaroon ñu laaj ko ne ndax lii nga wax nii waxyu la bu wàcc wala yow sa xalaat la bu nee xalaatam la ñu ne ñu nit bàyyi ñu ñu xalaat ñu xalaat la chaque ñaata yoon la yonent bi sallallahu alayhi wa wax ay waxam saxaabatul kiram gis gisin gu waroo ak moom yonent bi bàyyi moom gisinam topp leen topp la chaque ci seen gisin mhm. donc doomu aadama euh, musiba la nga tënk xelam tënk xelam surtout mhm. tënk xelam mhm. ba pare tënk xolam mhm. xelam ba dootul xalaat nga tënk xolam ba dootul bëgg lu dul li nga bëgg loolu musiba la daanaka moo sànq tey ndaw ñu bari kon bunt boobu ubbi nga bunt bu am solo moo nekkoon sama ñeenteelu tomb bi ñu waroon waxtaane moo war la ko laaj mooy ndax yonent yi yàlla yónni la chaque kenn werantewul ne ñi yàlla bind yonent yi ci gën loolu defe naa ne kenn werantewu ko ah te ci biir yonent yi ñi yàlla bind ñëpp xam nañ ñi yonent bi moo ci gën donte moom nangu ko sallallahu alayhi wa sallam waaw ndax am na benn jaamu yàlla bu yàlla wàcceel benn ci yonent yi maanaam jaamu yàlla bu yàlla wàcceel benn ci mu beral ko ko mu beral ko ko xam ne moom rek moo am droit def ko euh, alhamdulillah loolu amut maanaam euh, tey mhm. yonent bi aleyhi salaam mhm. comme ni nga ko waxee moom moo gën mboolem yonent yëpp mhm. am na nag ay xususiyaat ay jagle yoo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala jagleel na ko waaye santaane sharia yi moog ñëpp a ko yem moog ñëpp ci yem santaane sharia yi moog ñëpp ci yem euh, tey nag ngay gis loo xam ne ak tere sharia yi waaw ak tere sharia yi santaane yi ak tere yi mhm. barakallahu kon ñoo ci yem ñoo ci yem maanaam ñun ak yonente yi ñun ñoo yem ci ndigal yi ak tere ñoo yem ci tere yi lu dul loo xamante ne mhm. borom bi subhanahu wa taala moom moo ko defal ak jagle mhm. lu mel ni ki eh, dépassé ñeent ci ay soxna comme ni mu ko jagleele woon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam keneen ku dul bi sallallahu alayhi wa ak koo mën a doon boo dépassé li nga xamante mooy ñeenti soxna la nga def ci sa bakkan nga ko teg ak jaamaarloo ak yàlla ku yonantaam weddi seen i wax. kon boobu ndax sëriñ bi kilifa bi am na sañ-sañ. def lu ko neex ci diine bi. amu maanaam li ñuy woote sañ-sañ. maanaam sëriñ bi ñemee toog bàyyi julli. wala mu ñemee toog bàyyi woor. wala mu ñemee toog bàyyi benn jaamu yàlla la ñu ne moo ko sañ. déedéet loolu amut. loolu amut. de dina sëriñ bi. li muy def ci ay santaane ak la muy bàyyi ci ay tere lañ ko cay laaj la ko ca boroomam di laaj subhaanahu wa mooy la nga xamante ne yonent bi alayhi salaatu salaam moom moo ko andil kon amul lenn loo xamante ne moom moo koy xalaatal boppam wala mu jàpp ne am naa sañ-sañu lii wala ña ko ne ko sañ nga ko ba sañ ko loolu moom amut loolu moom amut ci jaamu yàlla daal mm-hmm. sëriñ beeg dongoleeg ñépp ci yem kon daal li mu fu ma comprendre mooy taalibe bi ak sëriñ bi ci wàllu ibaada waaw moom ñoo ci yem ñoo ci ci wàllu julli ñoo ci yem ñoo ci yem ci wàllu woor ñoo ci yem ci wàllu azaka ñoo ci yem maanaam lépp lu yàlla digle taalibe bi ak sëriñ beeg yonent bi ñoo ci yem lépp lu yàlla tere taalibe bi ak sëriñ beeg bi ñoo ci yem kon amul benn xasiya bu sëriñ bi am boo xam ne taalibe bi amu ko maanaam kon loolu su ma déggee mooy kon nag imam jot na ndaw ñi gën a yeew moom lay wax ne afala taaqiluun afala tadakkaruun alquran li tax borom bi ñëw ne lu tax du ngeen xalaat lu tax seen xel yi du ngeen ko utiliser kon lu bëri ci ñun tey ci ndaw ñi war lañ ñeen yee malheureusement nag boo leen di yee da ngay nekk seen noon waaw ki leen di yee waaw waaw da ngay nekk seen noon ndax yow boo bëggee ndaw ñu jub jubbantiku ngay wax ci tawhid di wax ci bidaa mooy dañuy jàpp ne yow da ngaa contre sëriñ si yow da ngaa contre nit ñu baax ñi yow da ngaa contre waliyu yàlla yi bu fekkee nag loolu la ñu jàppee mooy contre day kon jàpp naa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam contre ndax yonent bi dafa daan tere bokkaale mhm. te yàlla ko njëkk a tere ubudullaha wala tushriku bihi shay'a borom bi nee na jaamu leen yàlla bu leen ko bokkaale ak dara mhm. yonent yépp àndandoo yaa qawmi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruh ey yéen samaw xeet jaamu leen yàlla amu leen beneen borom budul yàlla kon imaam ci bu ñuy tëj lan ngay dénk ndaw ñi waaw li may dénk ndaw ñi foofu mooy nañ fexe ba xam ne li tax borom bi subhaanahu wa bind leen mooy ñu jaamu ko te bañ koo bokkaaleeg dara te bu ñu jàpp nit dina màgg ci seeni bët ba am sañ-sañ ci diine yàlla bi surtout ba am sañ-sañ ci diine yàlla bi beneen bi tamit mooy yow mi ñëw di leen yee ñoom du ñu kontaan ci yow ñoom ndaw ñi ba baa ñuy gis li tax nga di leen yee duñ mës a kontaan ci yow ña nga xamante ne ñoom la àndal tamit jiital leen ci kanam seen kanam mm-hmm. ñooñu moom duñ mës a kontaan ci yow mi yee ndaw ñi xam nga leen moo tax mm-hmm. Euh, nit ki doomu aadama mhm. dafa am ay mbir yoo xamante ne mhm. boo ko yàqalee mhm. mu def la noon ay mbir yoo xam ne boo ko yàqalee rek mu def la noon li daan feesal poosam boo waxee lu tax poos bi feesatul mu def la noonu li ko mayoon bayre boo waxee lu wàññi bayre boobu ñépp yemale kook ñépp mu def la noon li ko joxoon mbooloo boo waxee lu tax mbooloo ma mu tas mu def la noon lii nag képp koo xamante ne dangaa bëgg borom bi subhanahu wa taala kontaan ci yow la ngay fas ci sa xol mooy yow borom bi bu fekkee kontaan nga ci lii may wax ak lii may def bu ñëpp meree falaa ubaali sama yoon newu ci sama yoon newu ci mhm. Mhm. waaw yow borom bi mhm. na kontaan ci samay wax ak samay jëf bu loola amee rek doy na ma bu ñëpp meree tamit man falaa ubaali loolu rek oustaz jazakallah xeer yal yàlla fay la ah, ma jeexale wax bi ci benn anecdote laa koy tuddee eh, jamono yi passé dafa am benn wax bu ma waxoon rek ci afala taaqiluun mm-hmm. rubrique boo xamante ne day delloo si nit ñi yee leen euh, ba ma ci waxee ba pare mm-hmm. mu jur rumeur yu bëri coow yu bëri mm-hmm. ay nit génn ci télé yi ci Facebook bi yow Umar Sall dafa saaga sëriñ diw dafa nangam dafa nangam benn waay woo ma ci ne ma ci ñoom la bokk wax a wax a wax lu ko neex ba pare man ko waa baax na incha allah mu ne ma yow yaa wax ni diw nangam nangam ma ne ko déedéet yéen a ko wax mhm. mu ne ma lu tax ma ne ko yéen yéen a toog ci télé mhm. ngeen wax mhm. ñëpp di dégg yéen a wax ñëpp di dégg yéen yéen a wax ni seen sëriñ dafa dee del si amaat doom man waxuma ko waaw wala déet mm-hmm. mu naa ah, ma ne ko man nag comme ci xel laa doon waxal mm-hmm. ma ni nit ñi nañu xalaat bi ci nit ñi commencé xalaat ngeen gis ni dama leen opposé mm-hmm. mais opposé wu ma leen billahi alladi laa ilaha gayruhu waa xam nga lu ma wax ne ma maay diw boo dundee semaine ma xam ni kër gi ma bokk bu ndek du dëgg daanaka dem na dund na lu matu weer <laughs> billahi alladi laa ilaha gayruhu tey ci midi la ma waaji woo billahi alladi laa ilaha gayruhu waa ji woo ma mhm. bi ma woy ne ma maa la tëkku woon mhm. ma ne ko waaw mu ne ma damaa juumoon mhm. damaa juumoon ma ne ko lan lan moo tax ci lan la mu ne maa la waxoon boo dundee semaine ma xam ne kër ga ma bokk bokkatuma fa ma ne ko ah man de maa ngi dund ba léegi man la ma ne woon maa ngi ci yow nag mu ne ma oustaz ni ngay jamee daa metti moo tax kenn du gaaw a dégg sa wax wallahi loolu la ma nee na ma ni ngay jamee dafa metti moo tax kenn du mën a dégg sa wax ma ne ko nan laa jamee bu metti mu ne wax dëgg yàlla sama xel xalaat na xalaat naa bu baax yow waxoo dara wax dëgg yàlla ñun ñoo juum ñun ñoo juum te lii way boo xamante ni day daaneel gaal kenn du ko way ci buntu <laughs> tefes loolu la xaw ma dégg ngeen wala déedéet nee na way buy daaneel gaal ah. kenn du ko way ci buntu tefes mu ne ah, ma ko ah, sëriñ bi man bu ngeen ma comprendre oon mhm. na ngeen xam ni man ci ñi leen di dimbale laa bokk mhm. mu ne ma ko parce que lan tax mu ne gis nga ndaw ñi mhm. da ngeen leen a war a yee mais bul topp ndaw ñi di leen tëgguloo di leen fecciloo laay laay la laa kundum kundum tëb fecc du tax ndaw li yeewu tëgg sikkar musul yee kenn su amoon yonent bi ñëw yee li tëggeeku mais ndax yonent bi naa tëgg sikkar gaa yi tëgg fecc non mais tey boo nee fecc ci sikkar daganul ña koy def jàpp ne da nga leen a xeex ndax islam moo ko jàngale kon islaam jàngalewu ko mais gis nga waa ji ndeysaan bi ñu bi ñu waxtaanee ba pare mu ne ma maa ngi lay baalu àq bu baax a baax ma ne ko baal naa la àq balaa ngay tëj nag foofu mm. am na lu ma fa bëgg a wax tuuti mm. mooy ci sikkar fecc boobu nga wax noonu mm. ni mu lambee jamono surtout suñu réew mi mm. surtout sunu réew mi mm. mu yéeme lool man gis naa ci ñoo xam ne mm. am na ci sax ñoo ay personnels yoo xam ne xam naa leen dañuy sikar di fecc di def as aside debout assis debout di jonkan di tëb di <laughs> di fecc am na ci ku ma laaj man maa ko laaj ma ne ko waaw yéen lan lii lii lii moom xanaa balaa ngeen koy def dangeen di entraîné wu baax mhm. parce que lii condition la laaj mhm. mu ne parce que yàlla moo wax ne alladina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan noonu la ko tudde <laughs> xoolal loolu rek <laughs> mooy asi qiyaman muy dëgg waaw mu ne parce que yàlla moo wax alladina yazkuruna allaha qiyaman wa ñuy foowee alquran di ko foowee mais am na lu ñu tëb waaw wa ala junubihim waroon nañ ko cee boole xanaa bu ñu tëbee tëb ci kaw wadd war nañoo tëddee côté ba pare teg ci weyete fakkaru na fi yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ko ñëpp yàlla nañu yeeyee ñëpp bu ñu toppee lii incha allah rubrique bi macha allah <laughs> yàlla na yàlla barkeelal ko bari ñoom barkeelal ñu salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu غرباء